loola weesuwul yee ci sénégalais yi ba ñu comprendre xam fi ciy taxaw bu baax a baax nan lañ ciy taxawee ak nan lañ ci war a yeewoo gannaaw bi leen sonkoo yeewee ye yeeyee loola nag fi ma koy jiitalee tàmbalee ko ca njëkkee ko ca mooy ñu teel a xam ne moom ndaw ñi nañ teel a yeewu ci ne ka ñuy wax Idrissa Seck bu fekkee jàll na tey jàll na jërul kenn di am ci moom yaakaar. moom ci misaal xeeti mbaam yi ngay gis waxuma la moom mbaam la de dama ne xeeti mbaam yi ngay gis ñuy taxawaalu nii xam nga am na mbaam yu am njariñ <coughs> léeg-léeg nga gis mbaam moo xam ne day xëy suba ñu jox ko pepp takkal ko sareet muy daw ñu koy fay ñaar fukk ngir ñaqaw njaam mbaam mooma xam nga mbaam mooma am na njariñ mais am na mbaam yoo xam ne léegi da leen di gis ci mbedd yi ñuy taxawal guddee ak bëccëg kenn du leen takk kenn du leen def dara ñoo ñoo ko tane ci réew mi waaw ci gàttal parce que day ab workat ab trahirkat la te war na jaam ñi war Sénégal waaw junj nag day na boromum xel képp koo xam ne daal bëgg nga sa Sénégal di naqari te dootul neex ba faw ngay dund pression ci biir Sénégal jëlal saw carte jox ko Idriss Seck. mais sëñ bi yow tamit Idriss Seck yor parteem yor ay nit ñu ko gëm di ànd ak moom di ko campagnal guddeeg bëccëg mu jàll parrainage li gënoon amul njariñ loolu tamit jafe na comprendre ña ko jàllale moom ña ca ëpp amuñum xel moo ñoom a yem waaye ñi amum xel te bëgg lu baax te bëgg njariñ laa wax bëgg lu baax nan na fi ñukk Idrissa Seck bàyyi ko fi te dem moo gën loolu laa ci mën a wax léegi léegi ku àndul dafa am dafa am ay jamono booba maa ngi Mauritanie ma wax ko ndax booba ku tedd ki xamal ma ci lu yaatu mënuma woon a ñëw senegal euh, ma bëggoon a def ay interview yu bëri waaye dama ko mujjoon def ci ay vidéo ba mu jàlloon tas ci ay jamono boo waxoon leneen ne Idriss Seck mi mu ngi waaj lu garaw ndax mystique bu doy waar la yor te yëg naa ko noonu la influencé gone yi nag ba Touba mu gañe woon ko waaye bii di ñëwaat nii laa wax bis buñ ko joxee réew mi yàqu nañ waaw léegi nag loolu laay delluwaat di gaaw di profito di teel a xamal nit ñi ñu bàyyi ci xel Idriss sekk moom du nit ku ñuy war a jox am réew mu ko yor moom li ma ci xam nag bëri na waaye dafa xat temps bi ak li ñu war a wax dafa bëri waaye ma dagg ko foofu rek nit ñi dinañ comprendre